misaalu kuñ fal ci saw askan na mel ni ki baay buy toppatoo te yërëm tey fonk kem la mu man ci saw askan na baay buy toppatoo te yërëm man baaykat bu dee jànni tey boddeeka jàpp di tëj ci ak njabootam ne lii kat ñàkk baaya ko gën amal yatiima falaa taqhër yërëm ko waa masaahil arham falaa tanhër watul ma lu bon njiit kat balaa yëkkati kàddoom na sàkku jataay diisoog ña koy dolli am xel lum dogal di lu gën njiitkat balaa yëkkati kàddoom na sàkku jataay diisoog ña koy dolli am xel lum dogal di lu gën kun ci biir réew mi askan wee la war di soxal ngay dox ci seen aajo ak luy tax ñu ñàkk ñi man askan wi daa seddaloo ci ñaari xaaju ñu xam mbindam droite teg ca mbindam gauche ku nekk la nga man soo jàppalee ñi ci gauche jël leen ne tegg ca kaw baam ci ñoom ñuy xarab buur yàlla ngir lañu man nga jàpp ñi jëm droite di janni ak di xarab di yàq seen der ne gi tooñ kat tubaab ko man Cheikh Mouhamadan Mbacké nee na droit de l'enfant di leen jël ngir mu nekk fi ñoom wasilatan li xitaali diini tuula zaman démocratie di leen jël ngir mu nekk fi ñoom wasilatan li juhuudil xaqi lee gën a bon ku fàttekat la la fal ba tax nga def la la neex soo teggiwu tànk sak folle ku bir na ma man ku fàttekat la la fal ba tax nga def la la neex soo teggiwut tànk sak folle ku bir na ma ku fàttekat la la ba tax nga def la la neex soo teggiwut tànk sak folle ku bir na ma man barkeb Sëñ